te mën na gungi am di xam nga amoon na jamono bu ma saan a jaxle day dugg ci oto bi ñuy dawal ba ci yegg mooy yuqu naan tey bi day wallahi dinaa bés nangam bés nangam bés nangam waaye ñoom ñaar wallahi wallahi daa lay wax nii boo jëlee ne am di nga jël bés wallahi gis nga boo ci sotti sotti woon goudron du lakk wallahi boobu baax na waaw léegi nag damay bëgg a jox kàddu Chérif شريف بس يا خار عندك من بس مو راح تيقس نقصتو عندك موم تي ارسعل بسم الله ايتا ايتا <laughs> آه، آه، بسم الله آه، بركه الشيخ رفال امدي أه أه أه أه xam naa ne duñ ci wax lu bari xam naa ne yéen yëpp da ngeen wax ci côté àdduna bi. Mm-hmm. man damay xaw a tuuti rek jëm ci côté côté côté bi xam ne nit ñi réere nañ ko ñu mën koo tuddi côté baatin côté baatin bi rek dafay jóge ci moom baayam. Euh, ndax baayam dëgg-dëgg euh, kilifa la ci yoon bi am euh, Amdi mi Amdi Moustapha lañ ko tudde boo ne Amdi rek xam ko ne Amdi Moustapha la xaj na ñu ngi dugg ci li ñu tudde maanaam powum géew ñu koy wax ci théâtre bi ba yenn yu bari day làqu waaye it ku am ngërëmu waajuram la xam nañu yaayam bu baax a baax a baax a baax ñun ñëpp dañuy dugalante dañuy dem demlante baax nag luñ ko wax parce que bu baaxuloon man duma fi ñëw bu baaxuloon du ma fi ñëw kon bu mu ñëwee baax na kon euh, ñi ngi koy sant bu baax baax di ñaan tamit euh, maanaam euh, tele bi di tele bii xew ci jamono bii jóg ci jamono tey dem ja day dem day dem ah. loolu wóor na day dem ah. looloo leer kon day dem <laughs> kon ah, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm tamit ah, wax dëgg yàlla ñi xam ne ñoo njiit yi ndax it ah, bu fekkee ne maanaam sa sa sa liggéeykat dafee nekk yow nga nekk njiit li ma mënoon nga koo tënkam lu demee neen waaye ñoom ñëpp ñu ngi teew di jàpp ci bés bi ni ñu jàpp ci bés bi yàlla na télé bi raw ci tele yi. te xam naa sax am na ndax am na ay borom baatin yoo xam ne sama seen làmmiñ moo gën a saf na lu ci wax ba pare kon wax dëgg yàlla kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax a baax euh, euh, woon naa ko. kanti waaw sama animateur fii ci télé bi. kan la ko baal ma de. <laughs> Omaro bu Cheikh Béthio. waaw bu Cheikh Béthio wax alors ñu tàcc ko bu baax a baax macha allah mooy suma waaw. oui ma man mooy suma animateur euh, léegi ah? Amdi doguma la sax banaa sax Omaro di man nag Ndeye Mad mooy sama. baanu Ndeye Mad moo lay daaneel yow. ndax Ndeye Mad moo may daaneel. moo lay daaneel. waaw surtout bu waxee waxu xale ba noonu. ah sama yaram day daw. <laughs> Alors, euh, merci beaucoup, tiens Donc, sans plus tarder, on va continuer le show, on va continuer donc le plateau. Allez, merci beaucoup. Affaire aux comédiens ah, du Yombo. Alors, c'est joindre donc l'agréable. l'agréable. Euh, voilà, c'est le plateau spécial, donc anniversaire, mais également spécial plateau Saint-Valentin. ñu ànd ceeg am du mignon. Mhm. ay mbokkam yëpp ak ay xaritam yëpp ñëw jàppale ko ci bés bi ni mel. alors fan la ñu jëm. alors fu de jëm nag il feneen fu dul kër gi la maison rek la LCS alors nag tey nag maa ngi bëgg am mbégte ak kontaan lool xoolal ki nga xam ne ah, suñu góor la ma am naa sañ-sañ nee nañ ragal a féete day xaañee wërsëg sama góor sama mag mhm. ah, sama jumo sama lépp kooku Omaro bu seex Béthio man bu woyee ci sëñ Touba rek ma daal di daanu Omaro xanaa ah, a kañ ngay yegg si alors Omaro bu Cheikh Béthio ñu tàcc ko bu baax a baax tàcculee ma ko bu baax a baax Omaro bu Cheikh Béthio ndeysaan <laughs> Tony en direct lañ nekk de. waaw loolu la xamul <laughs> xam nga sama pupuné bi dafa réglé lay seetaan. sama pupuné dafa réglé wul. <laughs> non non doo toog foofu. léegi. Euh, voilà. waa kay. ñu ngi lay delloo ziar bu wér. Umaro. waa sama portugais bi. sëñ bi nuyu naa la yow fii laal def fii. maa lay ziare lu bëree bëri. delloo ziar bu wér asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seen i biir kër. Mm-hmm. te jàkkaarloog ñun du ñu seetaan. di ziar nag kilifa yi ma fekk yëpp sama nijaay yi toog ak sama papa yi. Eh, sama papa ji El Hadj Bas ñu koy ziare bu baax a baax di bég lool ci waxam ji di ko yëgal nit nekk fii la ëppee wax dëgg yàlla ndax bëgg moom yëg rek koy fay. waaw mm-hmm. ah, di ziar sama doomu ndey nag nga eh, xam ne mooy père mu xar daf ma bàyyi moom yaa yàgg naa jaar kër ga ma koy jox ci bagage yi mais fay daf ma daw. <laughs> sama papa la Kader sama papa la. Euh, joonu laay sama papa la yow lan nga yow naar nga wala enn nga wala docteur docteur it sama papa la sama xarit la. am di ñëw mii nag. Mhm. Ah, day sama baayu bopp moom. ki maag moom dañu yàgg. Ah, depuis Castor la Perron ñu nekk ay gone yu tuuti daan fooyee ci buntu këram ga wax dëgg yàlla mu mu mu féete woonu def ci ñun lu bari wax dëgg yàlla moo tax bisam bi mënuñu woon ñàkk nag ñu bàyyi sunu lépp ñëw teewee ko. du nuyu sama xarit lay jàkk Michel Guèye Ndiora mhm. Ramay Dara Sista Maria animateur animatrice yi nekk télé bi yëpp nuy nañ leen sargal nañ leen am di nag day nekk koo xam ne ci man waaw mënu woon ñàkk ma teewal ko wax dëgg yàlla programme yi bari na yitte yi bari na mais dama ne naa bàyyi lépp ñëwal ko ba mu yëg na ñëwal naa ko mhm. joxe sama participation ci bis bi joxe sama cadeau pas su ma noppee doogay dem fu may dem ndax moo ma ko ji mhm. amoon na nu mu doon dundeek man du ma fi teg sama tànk dëgg la ba tax na yow yaa baax rek mu ñëw yàlla na la yàlla fay amiin defal la jàmm ci barke Serigne Saliou Oumaro yow doo woy mbëggeel Serigne Saliou rek laay woy sama àdduna mais bés bu spécial bi sax mun nga ci fent xanaa benn affaire. sëñ Saalum laa bëgg boo ko bëggee kañ ma weer la ko. man sëñ Saalum sama bëgg dong dong dong. sëñ woy sama bëggeel. wuy ma wóyal ma ko mais loolu ëpp naa. sëñ Saalum rek laa bëgg. Eh, tàccu leen Omaro bu baax a baax. <laughs> Omaro kay booy joxe sa kado da ngay wóyal ci sëñ Saalum. voilà voilà dégg nga mañoon mañoon wax ko ko. wax ko. xam nga des fois da ngay gis nit ñoo xam ne leen di wax wayal ñu ne duñu way mais bu ñu duggee néeg way hmm? bu ñu duggee néeg rek way waaw man mi du ma way ci biti mais léeg-léeg ma way ci bi di nga way. lan mooy dugg nekk. ah. ah non yor ma soxna man ah, yor ma soxna. mais nekkoo <laughs> euh, wax na dëgg <laughs> waa nit benn xol la am te xol bi jox na ko Cheikh saliw eh. moo tax leneen mënu cee xaj. waaw. waaw Père Bass bu ko jàppale ci loolu. <laughs> jàppale ko bu bëgg a dee. laay jàpp bàyyi jàmbur. man moom li may way ci biti rek laay way ci biir. ana kañ ngay yegg si sax nag muy borom xabaan ak jëloon sëñ Salim Mbacke mhm. ah, xam na ne moom moom sëñ Salim. wóyul Amdi wóyul kado bi na ñëw yow yow xam nga dangay sama lépp. jugal jugal kado bi yegg si na waaye. <laughs> ah damaa bëgg rek. kado xam nga xam nga yow kado bi da tombé. Mhm. waaw ndax euh, bi ma bi ma jógee voyage. semaine passée. Uh-huh. bi ma laaj sa sëriñ dama ne la indi naa ko. yàlla dogal nag booba léegi gisewuñu. waaw ah, daanaka sëriñ bi laa indi rek mu doonaale kado bi <laughs> waaye nag des koy suufal baa ñuy koy biral. waaw ñu ko biral ne la nga ma laajoon laa indi nag. waaw bu ma indil problème di ma laaj lu ma yorul. la nga ma laajoon na ma moom nga bëgg. ma andil la ko moom laa indi. mooy la lan la lan la lan laajoon wax ko mu xam na ko moom xam na ko. mais wax ko mu leer wax ko mu leer rek waaw génne rek ñu xool. Ah, am ni da ngay am ngor tuuti. waaw da ngay am waaw kay am ni ma xool. non non non dañu xool dañu eh, xool. teraanga dañ koy wane teraanga dañ koy wane. teraanga dañ koy wane. teraanga dañ koy wane. non non garaawul gis ko. non jaaru ko jaaru ko jaaru ko. Eh! <laughs>

pakatel ma lépp gis bis bu nekk ak bisam. mais doo ma jox benn bi. bu nekk ak bisam. waa Dolce. oui xam naa nag dama leen ñëw bàyyi. waaw leen yeggali guddi gi ma dem. waaye nag mënta ñàkk moom bu fi teewee papa. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne ñoo ñu jàppale. waaw ok bés bi dafa am lu ci bok anniversaire am di la. mais également tay le Saint-Valentin. Mm. Omaro kenn werantewul né Cheikh Béthio nga bëgg Serigne Saliou nga bëgg Serigne mm. Touba nga bëgg. mais bés bi tamit Omaro xana yaa ngi labat xamna naa am na loo denc yow tamit nak wax deug neex yalla Cheikh Béthio rek Serigne Saliou kese. hein Serigne Saliou Omaro nak defal dank ñun ñëpp ay nit la mais père xamna limay wax. non non non bu ko père sama ko père daf may fréquenté. Omaro xamna na man Serigne Saliou rek ak Cheikh Béthio. loolu kenn werantewu mom ngay woy Serigne Saliou yu nga bëgg Cheikh Béthio nga bëgg. di nga am non amagul soxna ay. amaro waaw yaakaar naa ni. nit nga danga ngay lekk dugub ak <laughs> waaw te yàlla bu ñu bindee dafa am lu ñu mooñaale waaw bëggeel mm. nobel waaw gis nit sopp ko ngay gisee nit bañ ko dëgg la te yaakaar naa ne un jour souhaité nga gis benn xale bu jigéen ni am mm. Mm. moom am ak moom des enfants dëgg la alors boo ma nee ne Serigne Saliou rek ñun ñëpp bëgg Serigne Saliou ñu ñëpp bëgg naa Mohamed ñun bëgg Serigne Touba mais nag léeg sax danga naan gerte caaf la la bëgg wala dama bëgg a wala doomu daa daal moom bëgg la

Mm. ndeysaan Amaro mu accepté ma ma takk ko Amaro waxal ki nga bëgg rek yow tamit ñëpp xam ko waaye yow yow tamit waxal rek maa ngi fii waxal rek yow xam nga xam nga bañuñu bëggante bi wai wai wai wai ala kulli aal day am non dafa mënta ñàkk waaye waaye waaye waaye ñun dañ cee tollagul ndax dañ wuyul wuyul wuyul wuyul mañoon wuyul mañoon dañu seeg moom lan nga koy wax dañu ay gone tollaguñ ci mais bis bu ñu màggee fekk ay at ci kanam tontu woo waaw bis boo demee ba taseeg moom lan nga koy wax ah waaw soxna si na nga def mooy yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi fi waaw dama la bëgg rek ngir jëmmi sëriñ si. ah waaw ñëw ah. ay eh, tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu. loolu ëpp na a baax. ngi ñëw daw. voilà merci xam naa Dolce di gërëm sama yaay ju baax ji rek. ma mais dama tëdd yaa. Ah. Euh, madame Diouf Chimère borom top inter sama yaay ju baax jooju nga xam ne moo ma jàppale. Mhm. maa ngi koy sargal lu bare bari. du nuyu njabootuk Cheikh Béthio gépp di ko ñaanal moom sang bi mu yàgg fi mhm. di profité waale di wax mbokk taalibe yi ne soxna ay Ayda Diallo mu Cheikh Béthio Thioune dafa ma woo sànq bi may ñëw ci yoon bi na ma suba day sant Serigne Saliou cant gu mag ca Dakar mbay ca Thiès. Mhm. mi ngi ko yëgal mbokk taalibe yi di sàkku ñëpp seen teewaay di gërëm nag Babacar Ndiaye sama téer bi nga xam ne lu ma sol lu baax mooma yàlla na yàlla def jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di ñaan yàlla euh, jàmb ji nga xam ne moo fi am mu law ci barke Serigne Saliou sunu yi nga allez merci beaucoup alors euh, d'accord docteur <laughs> Baal pikir bi dégg ok alors Michel. oui wa ben non xam euh, Michel ak on forme qu'une seule personne. c'est ma jumelle alors Michel rek kon nak dañuy continuer li nga spécial Saint-Valentin dañuy nak continuer ak animateur bi nga xamné tamit mu ngi Saint-Valentin lañ wax mbisu bëggel lay dinañ ko am di mi ba c'est sûr que dina dess dina tok ci du am ñaarel du am am ñeenteel te kooku boo ko bëggee xam ah da ngay woo rek Bobo Guissané ñu tàcc ko bu baax a baax s'il vous plaît. alors euh, Bobo Guissané ñu tàcc ko bu baax a baax boobu ñu ngi lay nuyu. di la dalal. ñu lay fay bu baax a baax a baax. ok. Uh-huh. voilà lan nga gis déjà. lan nga gis ci bi ci plateau bi lan nga ci gis. après boo paree nga seetalal ma per bu xar. dégg nga euh, en direct li may njëkk a wax aussi. Mm-hmm. Euh, mooy maa ngi nuyu euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ba pare. Mm-hmm. di nuyu tamit waa Sénégal. dëgg di nuyu tamit waa LCS. Mm-hmm. di nuyu tamit nit ki nga xam ne aussi ku baax la mooy am Amdy Mignon. ax ñi nga xam ne ñi ñu fi toogal macha allah ak euh, artistes yi nga xam ne ñoom tamit war nañ leen njukkal bu baax a baax a baax ci seen ay génération def nañ fi loo xam ne aussi jaloore bu rëy la comme sama tonton bi toog nii ak sama euh, grand bi. voilà donc macha allah pepp pepp xar bu nekk nii aussi macha allah <laughs> kooku tamit. Euh, pepp xar ah pepp xar. donc. mënul eh, wax pepp xar nga ne nga ne. voilà bu xar. non attends dégg lu waxal. non pepp xar la. non xar <laughs> non non non vas-y vas-y waxal ma waxal. Euh, bu <laughs> donc euh, tur bi na L'essentiel, comédien aussi bu la. donc euh, man aussi bu hein. alors bi bon bi bi dafa ñaari la rek. Mhm. parce que normalement Saint-Valentin la. Mhm. en même temps aussi anniversaire Amdi. Mhm. Amdi donc lo rek mën lu quoi. donc fête bu aussi macha allah. Mhm. donc yéen ngi wax euh, anniversaire qui euh, kii. Euh, Amdi Mignon Amdi Mignon. Mhm. maa koy souhaiter joyeux anniversaire. Mhm. donc di wax ni tamit Saint-Valentin bi yemul rek fi quoi. waaw donc ci aduna bi yëpp la. donc loolu lu jara a la. te puis tamit ñu ngi sargal aussi jigen yi nga xam tamit ñoo ñuy

ngay dawal. Mhm. soo eggee ba ci feu rouge. Mhm. da ngay taxaw. waaw voilà donc man sama seet noonu la. Mhm. soo gisee feu vert nga continuer oto bi. dëgg la donc man noonu laay gisee. alors bon donc tey fii mënoo fee gis dara. donc fii yëpp a rouge. mënoo fi gis dara mais heureusement sax dafa rouge. ndax yow mii tey. mu nekk nii mënoo fi gis <laughs> dara. lu dul daal dinaa wax daal lenn rek. muy lan loo xam ne ci wàllu euh, état bi la. gouvernement bi. non non non wuy ma tay ba su mbëggeel la xoolal non non ki am na déglu ko tey ba su la. donc ba su mbëggeel naa ci ñew waaw donc euh, di wax ni ci bésu état kii euh, état Sénégal bi. waaw donc ma ngi né toujours aussi téléspectateurs yi. Mhm. ak gouvernement bi. Mhm. Euh, nous gouvernement bi aussi yi ñi nga xamné tamit ñom nga xamné ño amul dara. Ah. parce que gis nga dans la vie ñi am dañu war a dimbali ñi nga xam ne amuñu. dëgg la kooku tamit c' est important c' est pas le fait de fête bi c' est bien vrai. c' est bien vrai ñu ngi ci ñu ngi ci euh, Saint-Valentin mais Saint-Valentin du question mbëggeel rek. Mm-hmm. am na leneen loo xam ne aussi mun naa ne moo ëpp Saint-Valentin sax c' est à dire au niveau tamit ci ñi nga xam ne ñoo yor ñu dimbali ñi nga xam ne amuñu. dëgg la donc loolu aussi c' est très important parce que soo déggee l'art aussi xam nga dañuy ne toujours aussi le fait d'aimer xam nga sentiment la. Mm-hmm. mais man je je dis que le fait d'aimer c'est de l'art quoi d'accord waaw c'est de l'art donc l'art bi dafa nekk loo xam ne c'est vaste. d'accord donc mën na nekk ci wàllu mbëggeel mën na ci wàllu yërmande parce que soo xoolee diggante góor ak aussi yërmande da ci war a am. Mhm. waaw kon jëkkër jabar. waaw euh, fu ñuy waxee Saint-Valentin man. bi may waxee dëgg dëgg dëgg. waaw euh, jëkkër ak jabar foofu. waaw euh, jigéen bi war na yërëm ku góor ki. dëgg la ku góor ki aussi war na yërëm aussi ku jigéen ki. Mhm. donc loolu mooy mbëggeel. waaw donc Saint-Valentin yéen a koy wax mais ba léegi xamu leen sax lan moo indi Saint-Valentin. Mhm. te pourtant maa leen di delloo encore yéen journalistes yi. di leen mhm. laaj lan mooy Saint-Valentin. ah léegi nag Bobo. waa léegi seet ko nga gis ko nga wax ñu ko rek. léegi dafa naan dañuy waxtaan quoi dañuy waxtaan. non c'est niveau Bobo. def la naan am na nee dafay tontu attends parce que Bobo dafa am affaire yoo xamante ne nii mu ngi ko bëgg a def mu jëm ci ñun. waaw am na lu lay gaay di jëwee. waaw nee na sa seet yi nee nañ nee nañ sa seet yëpp mbëggeel la yow affaire mbëggeel rek ngay gis. ah man lépp laay gis. non non ah. li ci ëpp mbëggeel. déedéet lépp laay gis yow ni. yow nii yow sa waa ji nga bëgg gars yi nee nañ sa seet yëpp daanaka mbëggeel. wuy ma booboo puisque danga ñëw ci mbirum mbëggeel. waaw te man jamono ji ñoom ñun ñëpp moom moo ñu saf ndax danoo nek Saint-Valentin. waaw daanaka tous les jours c'est la Saint-Valentin ah. alors nag damay bay ñi nga xam ne ñooy suñu invité. Mhm. ñi nga xam ne ñoo toog mhm. ah nak posé nga question bu am solo. Mhm. xanaa ku ci nekk kay ah. lu muy ressentir dëgg mbëggeelam mhm. mu daal ko wax rek partage ko ñu ñi seetaan boobu du la neex waaw loolu moom dina waaw léegi foofu lañ koy defee ñu bàyyi rek nga daal di tàggatoo ñu ñuy seetaan ah di la remercier tamit ci ñëw bi nga ñëw ci plateau voilà mais avant may tàggatoo mhm. Saint-Valentin c'est important mhm. dafa nekk loo xam ne turu nit la ñu xëyul nii rek nekk Saint-Valentin mais tur la boo xam ne turu tubaab la dëgg la donc c'est un gars bo xamné xamna ni mbëggeel bi moo ko ëppoon fofu donc il fallait mu génnee ko. Mhm. c'est un prisonnier quoi. Mhm. donc lo rek la len di wax dal donc maa len di gërëm di sante euh di nuyu tamit téléspectateurs yëpp. <laughs> jërëjëf mais xam nga Amdi amdi, amdi, bu doon ci ñooñ la. Ah. Valentin lay tudd. waaw parce que le 14 février la judd. Ah. c'est très important Amdi, Valentin lañ la wara tuddé sax non mais sérieux il y a une complication non il y Valentin la a tudd joxal ma père bu oui euh, Bobo Nous sommes lay jaajëfal bu et on te souhaite aussi de passer une très bonne fête de Saint-Valentin merci beaucoup Bobo merci beaucoup donc moi, je gërëm aussi sama spectateur yi nga a mm-hmm. mm-hmm. donc je euh, ngi di wax ni dimanche à mm-hmm. partir de 22h merci beaucoup alors ça a été un plaisir de le recevoir sur ce plateau Bobo donc il fait l'émission l'émission Bobo Guissane euh, sur la L16 tous les jeudis et tous les dimanches euh, merci beaucoup Nous koy remercier Bouba baax alors sans plus tarder. dañu di comme nous ñu dit, les léegi nii euh, ci question bi ñu posé léegi ku ci nekk rek. Mhm. ni ngay dundee sa amour ñu daal di jox micro bi ku ci nekk jox sa avis ku ci amour bi maman Maria dañu daal di juste un élément et on revient tout de suite sur le plateau de spécial Saint-Valentin à tout de suite. c'est parti. merci beaucoup Dolce merci beaucoup

ziar naa la gëj gisee waaw jaajëf naka waar yi sant nañ bu baax alors tey ñëw nañ dañ ñëw seet si la ah euh, LCS la seen sénégalaise ah mhm. pour woon téléspectateurs yi boxe bu seen kumpa tey la spécial Saint-Valentin mhm. ñu koy dund gars yi des fois dañ ciy génnee ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci hip hop quoi te dañuy am jabar xam nga yore kër et tout cela pour ñoom duñu ñu ko quoi pour ñoom rapport yi ay extraterrestre dund lool dañ dund lool <laughs> ah, <laughs> nga nuyu téléspectateurs yi waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur u LCS bi yëpp euh, di nuyu euh, ñi nga xamante ne dañuy dund love ñi nga xamante ne am nañu histoire love et j'espère que euh, yàlla def na ne mu def ñu ay nit bu ñu defee ay nit mënu ñu baña bëgg manam bëggel soit que ci sa jabar ci sa dom ci sa yaay ci sa pap wala ci sa frère wala ci sa sœur yépp love la quoi ñom seen waaw ma ngi profité ci occasion bi euh di wax gaay ñu gëna a bu baax baax parce que aduna bi mënul neex nga amul bëggel waaw mëna mëna mun euh, ay ay ay 5 ans ci ginaaw ha ah. uh-huh. ay 5 ans ci ginaaw parce que soxna ci sumay may ko bañu xamanté def na sama jour anniversaire lo jour anniversaire man personnellement waaw sama jour anniversaire la won mu àndoon nak benn benn benn benn benn benn copine am. Uh-huh. benn kooku grande sœur la sax quoi. Uh-huh. tu vois parce que kooku moo ko yar et tout kooku xaritu buur ba la woon. Uh-huh. waaw ñoo ñoo màggandoo muy Lady Sinaay. Lady Sinaay te moom Rapajoo la nekkoon ñu demoon ba xamante et tout. Euh, te moom moo yaroon sama soxna parce que magee na ko ay at. voilà ñu àndoon ñëw sama jour anniversaire Medina. après ñu xamante te Sinaay sama complice la woon sama gars. ok xam nga. ma commencé ko nag sonal quoi donc mais booy bi kàlla. waaw waaw xam nga euh, après loolu. ay ay ay un an deux ans da doon ñëw gàllee tout le temps di ànd ak soxna si léeg-léeg par weekend dañu doon ñëw di passé foofu weekend yi affaire yooyu di replié wu. tu vois léegi nag moom nekkate période yooyu yëpp. mu may bàyyi xel mais mu ngi may seetlu tamit aussi bu baax a baax quoi. te du ne dama bëri woon gel. Uh-huh. mais dama bëri woon <laughs> ñu waroon topp. <laughs> non wax nga bu pare. <laughs> xam nga. Uh-huh. mais alhamdulilah quoi xam nga ba moom ñëw na ñafe ba fexe ba ba aaki moom a génne ma ci lu bare bari c'est parce que ba ma demee ba xam ne euh, war naa mën a jàll ci fulla war naa mën a mën a mën a casewu mm-hmm. xam nga pour pour easy maanaam def ni sunu yenn grand yu cool yi mhm. voilà def ni yenn kilifa yu cool yi mhm. euh, dama commencé faxas lu bare bare honnêtement pour dire vrai parce que ay jeune lañu ay boy Médina lañu mhm. voilà amna affaire yoo xamante ñun dañ ko doon damo diko diko diko bako diko bandi bandi lo parce que pour ñu xam yo bandi deug nga il faut nga am ñaar ba ñetti gel voilà après lolu après jamono day dox da ngay da ngay reccu lolu quoi jamono day dox da ngay xam lolu yow sa énergie ngay perte rek da ngay xam yow yaay dem ba nek sax katch kat manam di nga wax ki lu dul dëgg wax kala lu dul dëgg voilà après bu katch kat ngay nekk quoi da ngay tek sa bop nek ben prisonnier te mhm. après dund boobu noonu dama bëggone mu jeex ci man c'est parce que ay at ya naa dund loolu nek ben prisonnier wu ay ay ay ay ay ay ay disquette wala ay soxna yo xamantene manam mhm. ah, du won farata ak sunna quoi et ma dem ba xam jotna mhm. que ñu jall ci lu sérieux après nak avant ñu proposer mariage wala quoi que ce soit ma commencé di faxas lu bare bari commencé di caser wu nag di régler ak mom commencé di sérieux carrément ba ma lu ñu wax relation quoi commencé indi fidélité carrément quoi et voilà te man buur ba daf ma ko doon tooñee daf ma doon wax ne. man maa ngi xaar premier jour boo xamante ne da ngay ñëw ne ma gis nga sa jabar ah. wala dangay ñëw ne ma léegi da nga fidèle ah. la <laughs> <laughs> nekk artiste rek pas forcément rappeur am ah. mm-hmm. artiste rek sa jabar kooku kooku yàlla rek moo ko mën a protéger kooku yàlla kese moo ko mën a dëfal mhm. parce que defe naa ne euh, mbëggeelam sax mënatu ko téye mhm. parce que day dem ba benn moment sax dina sikki sàkk ci moom lu mu jàpp mhm. c'est parce que ñun ci milieu bu ñuy dund am na tentative bu nekk ko ci milieu bu ñuy dund am na façon bu nekk te lu ne ngay gis lu ne ngay dajal euh, léeg-léeg yàlla bu defee nga am benn soxna boo xamante ne elle est compréhensive ci par rapport ak léeg-léeg guddee tëdd yi si léeg-léeg suéter won kenn tek ci bët mhm. te léeg-léeg ñom dañ ci dal mhm. da leen di metti da leen di nakari te teewul après ay waxtaan la ba juboo après dañuy déggo xamoo nax bu ñu tëddee guddi dinañ nelaw léeg-léeg boo demee mm-hmm. ndax du ñu nelaw te loolu yëpp euh, euh, euh, honnêtement soxna si mosuma ci indil benn jafe-jafe mosuñu mm-hmm. ci ab benn problème boo xamante ne lu jëm ci affaire de jalousie la wala ay fiirang ak yooyu noonu mm-hmm. te am na ci plan droit ah. bu ma ko doon teg tamit dama koy jox li nga xamante ne loolu la moom c'est parce que man ak moom ba ñuy ba ñu marié wu marié wu ñu ci cadre ay musique ay art ak yooyu noonu dañu marié wu ci Euh, yonente yalla sunna euh, si Muhammad voilà te loolu def na ne bu amee caaxaan lalu ci mhm. intérêt personnel lalu ci mhm. léegi intérêt bi man ak moom avantage yi man ak moom wa te lu bari honnêtement sonalu ma ci loolu mom dama ko koy santé te dama koy nane encore merci dama koy nane encore jaajëf ay occasion la yo xamantene il faut qu'on le dise hein, parce que ay nit la ñu ah hein. mhm. xam nga ay artistes la ñu mais ay nit la ñu tamit aussi léeg-léeg dañ leen di méttital waaw comme ñom léeg-léeg nu ñuy méttitalee léeg-léeg dañ leen di tooñ mais il faut ñu leen di jégalu tamit aussi parce que dañ leen ameel àq bu bare bari waaw sunu ay soxna la ñu uh-huh. mais macha allah man am naa soxna bu gën ci soxna yi waaw te maa ngi bu baax a baax quoi de toute façon man maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy encouragé uh-huh. di ko wax tamit encore merci beaucoup di ko di ko jégalu aussi di ko di ko di ko baalaax bu baax a baax uh-huh. di ko encouragé parce que léeg-léeg ñu tooñ te duñ ko tey waaw léeg ñu def loo xamante ne du nekk sunu sunu coobare merci beaucoup maa ngi koy encouragé di ko wax jaajëf di ko wax massa aussi c'est parce que yombul pour am artiste mm-hmm. euh, yombul pour génn euh, de temps en temps les léeg ci mm-hmm. love my wife I love you baby voilà merci beaucoup beaucoup maa koy bëggee di jabaram di gars émission spéciale Saint-Valentin ci la chaîne sénégalaise bro merci Mwen kousen yon koutou le kou mwen l'iPhonique merci à l'iPhonique ñu ngi koy remercier bu baax a baax sunu animateur hip hop maison merci beaucoup l'iPhonique dem donc demoon seeti Books n'est hein, nekk donc un rappeur fii ci Sénégal merci à Books également de nettali les rencontres ak soxnaam nu mu dajeek hein. euh, c'est vrai après artiste, yi toog fii yëpp ku ci nekk ci de dina ma nettali nu mu njëkk a ak soxnaam euh, fan la njëkk a fan la njëkk a gisee euh, nu nu mbëggeel gi ñëwee ku ci nekk ci ñoom dina ma alors sans plus tarder avant ñu introduire Michel Amdi

Il a aligné bien. Il a aligné bien. Ok. Manako soxna si eh. mu ma. Je suis moi lan fan résidence. On dox. may dem. Mhm. da Je quoi. un ok. Manako eh. mu faalew ma. Moi, mhm. eh. soxna si waxal. waaw. quatrième fois. <laughs> ma ko mu mu tourné ma ma ne ko yow da reew sax su tax ma reew sànq ba léegi faalo woo ma <laughs> mu ne ma yow téye culotté ah. téye culotté moo boobu laa njëkk jàpp. man de liggéey xaw ma ko wax dëgg yàlla. ma ne ko mais yow. ci loo ne mu ne ma maa ngi nii. ça va. waaw ma ne ko dama doon laajte diw. Mm-hmm. mu ne ma noo xaw ma ko. mën ne ko ah. mu ne ah ma ne ko foo dëkk fii mu ne man kër gii. waaw a ne ko est mu nga ma may ndox ma naan mu ma waaw mu jug may ma ndox ma naan ma ne ko baax ñu taxaw noonu di waxtaan. Mhm. téye kaas bi. yow boobu amoon nga intention pour jël ko pour euh, nga baal ma ci terme bi ah jël ko comme ni koy gars yi di waxee. doxaat ko voilà voilà voilà amoon nga intention boobu. wala boobu danga ko bëggoon a sonal rek. amoon naa intention boobu waaw. da ko gis rek Bardé. am intention boobu ci moom. waaw léegi ngay wiiri noonu noonu pour mun a am pour mun a am temps pour wax ak moom quoi. waaw ok. léegi may wiiri noonu wiiri wiiri jaari ndaari xam nga. waaw ba ma ba ne ko kirtim. <laughs> ba ma ko ne kirtim après ñu doxal. Uh-huh. un mois deux mois trois mois après quatre mois cinq mois de six mois sept mois ba ba may takk. ba ba ngay takk. waaw ah. ayca ñu tàcc loolu bu baax a baax ah, mbëggeel sax ndekete yow dina juddoo ci bedd bi. dina juddoo ci potu ndox. dina juddoo ci potu ndox. <laughs> un verre d'eau. sa mbëggeel ci verre doo la juddoo. si verre doo comme day wuli rek ak petit. <laughs> une verre d'eau la juddoo. ayca foofu baax da dool ci on enchaîne direct boobu. Marianne ak Kirk ñu ngi juddoo seen mbëggeel mi ngi juddoo si. kenn kenn ci. Marianne ak Kirk. kuy Marianne

ba ñoom ñaar daal. Uh-huh. dafa melni kenn ki malaka mooti moo do ne mu ne ko balaa def kaa mel sama doom. yow daal am di yaa ngi nii. Ah, waaw Laye <laughs> <laughs> ok merci beaucoup alors gis ngeen ko ñu continuer juste ah. avec juste cette ambiance alors bana ñuy jox euh, micro bi sama sama sama pupu ne bu bees fas naa Tony d'accord léegi maa ngi ci peer bu xar. ok léegi. Euh, waaw gis nga. banaa dara di dara dama daal di dalal nag euh, sama jumelle. Mhm. ah sama sama cariño la grande dame Michel Guèye ah nga xam ne saa su ne maanaam moom ñuy ànd ci li xew rek te Saint-Valentin fa xew Michel Kof Kof. allez Michel sur le plateau donc le spécial Saint-Valentin di bu baax a baax Kof Kof Michel <laughs> eh, na cadeau bàyyi sa caaxaan. Eh? Michel moom mu waaw. moom si suba la ma jox Carigno. waaw def rouge noir vous baax C'est ça. non attends attends demal demal demal nga demandez ko parce que. nga non bise ko ah Michel manque les lay pour sama né eh. <laughs> Michel. non non ko non, Beaucoup, beaucoup Bas Jaxate sa xarit sa Michel Wa docteur docteur Wa docteur da nga Michel ñu ngi lay dalal ci plateau spécial Saint-Valentin plateau tamit nag ñu ànd ci ak am di mu daal di fêter birthday am ana lan ngay wax nag ci bonsoir à tout le monde à vous les téléspectateurs de la LCS na ma koy waxee Euh, jàmbaaru ñetti lettres yi dama koy daal di def nii rek muy L C ak S donc nuyu naa leen yéen ñi nga xamante ne laa fi fekk ngeen sama ni sama ay naataango muy euh, lay jàkk nuyu naa la. merci vraiment. di la nuyu sama cariño sama grande dame ki nga xamante ne saa su nekk damay fegook moom rek euh, samedi nuyu naa la dool Dolce Montero. fay naa la chérie. di nag wax happy birthday ki nga xamante ne sama frère la sama xarit la sama lépp la am di mignon. oui <laughs> nuyu naa leen bu baax a baax a baax di leen wax nag euh, happy Valentine's Day. am nga Valentin. voilà. ah bu baax. <laughs> waaw waaw. Adama. Euh, mi ngi ma bokk fële na fële na taxaw def bokk <laughs> Tony damaa bëgg sama sama sama kariñoo buy wax ngay noppi dégg yaa ngi may tooy. moom est-ce que mën na ma bàyyi. <laughs> alors euh, uh-huh. Lay Diack alors nee nga nag am nga Valentin an ah, naka nga dundee sa Saint-Valentin. lan nga jënd lan nga préparé lan lañ la offrir ak loo offrir. waa am naa nag na bouquet de fleurs bu nice. Ah, torop torop torop buñ ma offrir euh, mën nga ma bàyyi s'il ma wax. yow gis nga docteur ni mu lay xoolee docteur. <laughs> waaw moom lan moo ko nakari sax ba ma koy nuyu sax mu bañ maa tontu. dëgg dëgg. lan la docteur xanaa gisoo kii. docteur lan la wuy li. mu ne. <laughs> docteur. bul faale docteur yow. duma ko faale maa ngi nuyu nag sama per bass bu baax. kof kof père kof kof. <laughs> moom loolu da koy daaneel. sànq ba tey kof kof ak vrëch. ak vrëch na ma dinaa leen waxal lii lépp ngeen di def sànq ba tey. <laughs> waaw léegi ñëw ci saint bi. wa Saint-Valentin ku ne xam ne fetu beugante la ku ne xam ne fetu mbeugel la. Mm-hmm. ñu daldi beugante rek ñun ñëpp motax ñu daldi taxaw fi dafa plateau bu yaañu daal koy wan suñu ay téléspectateurs ku ne daal ci wan a gis sa bop dëgg la c'est très important alors dina ñëwaat ak yow légui légui mm-hmm. voilà donc en attendant Dolce. oui dañu introduire jox micro bi ki nga xamantene ni voilà mom artiste la. ndaanaan la mm-hmm. euh, xaritu am dimignon la. dëgg donc ci bëss bi di anniversaire

am di man du ma wax lu bëri ci moom dama koy souhaiter joyeux anniversaire et, et puis euh, ma ne ko du courage mu continuer persévérer euh, di ko ñaanal li nga xamante ni moom la nit di ñaanal moromam pour que mu tekki ci àddunaam par rapport ak liggéeyam euh, surtout di ko ñaax aussi mu continuer gëm gëm li mu doon parce que lu li ngay def boo ko gëmul doo si mës tekki donc déjà ko moom mi ngi ci loolu moo tax tey jii nii ñun suñu ànd yàgg na. Euh, bon man am di sama jabar moo ma ko présenté moom xam na nu mu demee ba tey jii nii ñu nekk euh, ay ati at donc ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko li mu bëgg saxal ko ak biche man su ma ne biche damay bëgg ree biche <laughs>

waaw donc loolu moo waral tey gis nga affaire nu mu bokkee. Mhm. bon anniversaire am ak euh, bon voilà le mariage euh, avec ma femme et tout. Mhm. donc euh, bon maa ngi si profité comme man damaa guddee. Mhm. fu mu toll nii heureusement que direct la bu direct du baax. dëgg la dañuy foog ni yaa ngi say Valentin. <laughs>

moom ah. laa wax de ca moom. waaw mais lépp laay def man. bu baax ok lépp laay def loo xam ne bokkul dara ak comédien. waaw bi nga xam ne mooy def lii c'est man et ma femme. d'accord saa yoo xam ni sentir nañ ko bon voilà et puis je pense que ñëpp loolu la ñu war a def benn instant boo xam ne yëg nga ko c'est pas une question dama ko war a def pour neexal ko rek yam si da nga koy yëg. comme amour nañ koy yëgee instant boobu nga wax ko ko te muy dëgg ci yow. Mm-hmm. am na yoo xam ne dañ koy wax te du dëgg da koy wax pour muy neex xam na ñoo xam ne tey Saint-Valentin dem nañ jëndi fleur ñu indi ko fekk fleur bi affaire de fête la moo tax ñu joxe ko. Mm-hmm. dañuy toppandoo moo tax ñu joxe ko mais mm-hmm. Saint-Valentin euh, euh, euh, je pense que chaque jour war na am. saa yu ko yàlla mbëggeel yàlla moo koy def si nit. yëg-yëg bi tamit yàlla moo koy def si nit. bés boo ko yëgee rek def ko donc du waruñu xaar ba saint comme li kii waxoon sànq man gëwuma Saint-Valentin. Euh, dañ ko jéggaane du suñu feet ñun mais dañ ciy roy mais boo koy roy na nga ko yëg da am na ñoo xam ne dañ jël cadeau jox ko nit te cadeau boobu noonu cadeau normalement cadeau am na lu mu war a wax. dëgg la boo par exemple tey jii mënoon nga bañ a am xaalis ba amoo dara sa jabar dugg waañ nga jëloo ko carotte bi. xolli nga sob xolli soble mënoo togg nga ne ko tey baay ma ma jàppale la si waañ bi mën nga ko jàppale loolu je pense que cadeau la lu ñuy yëg mais nit ñi léegi dañ ko jël parce que am na benn waay boo xamante ni moom. dañ ko may carte carte bu rafet carte bi di way Saint-Valentin bon ñu ko xamoon bëriwul ay jamono yooyu noonu bon moom bu mu jëlee carte bi mu ne kenn du ko yey moom it mu dem mu ne il faut ma may ko dara ma may sama sama gel bi dara. dëgg la euh, bi mu demee laaj xaritam mu ne ko da nga koy may fleur. ah waa ji di dem ci fleuriste bi dugg mu duggee xool ba mu neex ko ne ko pardon monsieur euh, le numéro 7500 laa waa ji ne ko non c'est le prix. 7500 <laughs> fleurs mu ne waay lii moo gën a seer saako pomiteer xaaral mu te buggee vie donc cela veut dire que il faut nga xam il faut nga xam li ngay doon donc euh, maa ngi euh, gërëm am di aussi ah. di ko. voilà mais li laaj am di foog ma laaj la ko ah. fan njëkk a gisanteeg sa jabar. bon man déjà dama judd sama jabar après la judd. Ah. non attends non. xaaral ma ñëw waaw bi ma juddoo man. waa après tuuti sama jabar dafa juddu mais man fi ma juddoo ak sama jabar bokkul. waaw léegi après moom xëy na papaam ñu affecté ko fii man tam papa ñu affecté ko fee. léegi bi ñu affecté sama papa fii après moom papaam ñu affecté ko fii li ñu xaw a bokk koñ. après koñ du benn quoi mais boo fay dem na ngay jël car rapide bus tata wala wala kii clando wala donc mu sori am na un jour ma jël taxi après moo xëy na mu jël bus wala clando xaw mot ci suñu te wuñu woon après bi ñu tasee nag bi ñu tasee ñun ñaar ñu xoolante bi ñu xoolante xam ne ñun ñaar ñi yàlla moom moo bindoon nañu war a gise après ma ne ko yàlla dafa bind nañu war a gise mu ne waaw vraiment géntoon naa ko noonu la demee après léegi ñu dem ñu ñaan après ñu mayee ñu takk eh, tàccu leen lii waaye tàccu leen lii yàlla moo ko def mais xeetu trajet ci yooyu daal la lalu xam moom euh, am di nee na mariage am ci. Euh, euh, verre d'eau laaj ko laaj ko bu muy dem fan fan foofu noonu. lu mu am di. trajet la aussi trajet la ah. waaw. mais yow ñun ñëpp trajet la amul kenn ku mën a wax deful trajet ba am ba amul. exactement ñep def trajet te yalla moko dogal. deug la légui banaa ngay jox cadeau bi euh, Père bukhar laay jaag si tu me le permets. Mhm. ñu bëggon nak ñew tuuti ci show nak tamit tay spécial Saint-Valentin la. Mhm. Euh, anniversaire wu tamit Amdy Mignon euh, macha allah ñu am ay comédiens yu gëna a mag. Sénégal ñoo fi toog. Mhm. alors franchement lolu déjà fierté la mbekté la vraiment ñu daal di bokk ak yéen plateau suñu papa yu baax yi suñu nijaay yu

Euh, nous mu tudd mhm. euh, comédien bi mère, mu euh, def comédie taxul tamit a fayda ci un show bo hamne. a Beyoncé non non c'est la fête quoi. comprendre question mais moi, mi may poser question c'est pas pour pas une question d'un air moqueur au contraire c'est juste une question pour nous que show tay tax ñu ngi tok fi def plateau bu civilisé bu amana, tok di waxtaan ñu xamné déjà que yéen euh, certes vous êtes des comédiens mais tamit euh, hormis euh, comédie bi ngeen def tamit am ngeen ci fulla fayda alors and bu ngeen amone àndoon ba def bëggoon am xalaat imiter Beyoncé naka la leen bon en fait il faut dire que Beyoncé c'est c'est récent par rapport ak suñu ànd am na leneen ak leneen lu def avant. Mhm. bon du ñu wax sax genèse loolu. Mhm. mais Beyoncé bii nii. damay joxe benn anecdote mais dafa graaw de. waaw anecdote bi may wax mooy dama toog di ko seetaan man def naa ko xam naa ko. Ah. sama waa kër nekkuñu fa. <laughs> waaw euh, mais bi ma toogee di ko seetaan ak. sama jabar seetaanal li yaa ngi gis. yaa ngi gis si si. <laughs> <laughs> <laughs> Ah, vas-y donc bi ñu koy seetaan. Uh-huh. sama jabar maa ngi toog mu koy seetaan ak man man xam naa li fa ne. waaw parce que moom demul woon Kaolack. donc dem Kaolack. ah c'était Kaolack mais waaye lii Kaolack la donc seetaan ne kii kan la am di laax laa reetaan kii er, nii eh docteur la eh kii kan ma ne ko Matar ma ne waaye kan la ma ne ko man man loo may def nii. <laughs>

daa xalaat rek ma ne mais tiens tam ñu def benn benn playback quoi. <laughs> mais wuy ma yéen yéen a feeñ leen rek mais tamit euh, père bu xaat joxal ma ko joxal ma ko euh, micro bu xaat moom tamit am nga ci benn show bu baax. mais Dolce <laughs> euh, eh, ma teg ci nag danoo sol nag leggings bu xew. Michel def ay baa leggings bu xew bu baax bu xew. mais def seeni ah gis nga leggings bi. non léegi si am benn jigéen boo xamante ne suñu jigéen la muy Viviane <laughs> moom moo génnoon si yenn yi waaw waaw moom yenn yi solo yëpp Viviane presque moo ko financé woon daal waaw parce que dañ BNC bi comme ni ko Kader waxee si biir euh, hôtel bi ñu nekkoon. Mhm. Euh, foofu lañ ko xalaatee. Mhm. parce que leneen lañ indi woon mais dañu ne dañuy indi loo xam ne booy indiwuñu ko. comme Kader yoroon naa fee ñu xool ko on s'est trouvé si ginnaaw ñu ñu créé foofu répétition foofu lañ ko doon defee. <laughs> defee ko foofu indi ko tegal ko une heure de temps même pas une heure lañ def répétition bi. da ay. Ah. waaw waaw 15 minutes ngeen répéter lii li lii matul woon kii dañ ko to wax ko dañu amoon lu ñu indi ñëw foofu ñu né non dañuy changer ñu ñew nous, mu dit sound bi ñu nous déglu bi ñu deglu, déglu man ak on le fait ñu taxaw ni bon bi même pas 15 minutes. Uh-huh. ni la def ni la def ni la def allez hop c'est parti on l'a fait. ah c'est parfait. voilà man amona lu bëgg a ci question bu mu sank parce que dafa né du affaire fayda. exactement surtout euh, euh, dafa am dafa am euh, comédien da ngay ci kaw scène bi comédien ci comédien. mais dafa am que pera ngi nii saaneex a ngi nii ñeneen a ngi nii xam nañu mais ci mbedd bi doo ñu def loolu loo xam nii parce que il faut se dire que euh, euh, avocat bi buy def plaidoirie am euh, bu paree day simi robam du ko yóbbu ngénte donc ñun aussi même chose la liggéey lañ ko def dañuy fonk suñu liggéey bu ñu génnee ci mbedd bi du ñu ay golo park wuy ma daa mel ni bu père bu xar moo nekk nii di indo bi <laughs> waa père bu xar a lan ngay wax ci sa élément bi. <laughs> mais père. père père mais père fi nga génn. <laughs> waa père li lan la. <laughs> waa père. non man man sama problème mooy lii fu ngeen ko jëlee. <laughs> xam nga nag nee naa la fii mooy la LCS. man fu ngeen jëlee lii man. non ay xale fi nekk nag ñu yor nag suñu ay application yu baax. mais père Endo Endo day sol chari. wax dëgg yàlla mais lii Lagos la. Lagos lii du Lagos de. lan la Lagos soir de soir la. ba pare ma jiital benn baa boo xam ne baa bi mi ngi sama jumbax mi ba li ma sol.

Miss Sénégal la woon bu amoon. Euh, cercle mess. Mhm. cercle mess là mon, cercle mess des officiers. Mhm. Ah. bobo kii moo fa don def Ambroise Gomis. Mhm. bobo Jean Diouf mo don ree ree <laughs> Jean Diouf caméraman mon mo néwon ci caméra bi. mais yag na li man faté won na ko sax. non ah, mais lo xam ci régisseur rek. bobo néwuguma sax ci télé yi bobo booba kenn <laughs> booba kenn xaw <laughs> alors mais en tout cas ça fait vraiment plaisir yow tamit ñu dalal la bu baax a baax eh, ci eh. plateau spécial Saint-Valentin. alors ak bëss bi nga euh, voilà bëssu am di mignon la nekk mhm. anniversaire am. Mhm. alors ñu ngi lay nuyu di la dalal ci LCS. waaw maa leen nuyu bu baaxa ba baax di rafetlu initiative bi anniversaire am di mhm. euh, euh, man dama ci wara tew anniversaire am du képp kuy comédien té ne ci Sénégal da nga wara tew surtout man. ndax déjà doyen sax ñewul ndax dafa nek Louga maritime ñewul ndax dafa xaw amé malaise mi ngi mi ngi Médina mais vraiment euh ndax am di am di ànd nañ fu ne. am di ànd nañ fu ne am na lu bari mo koy wax ci mom euh, fi laay fanaan. ndax am nañ voyagé bokk benn néeg di tëdd dafay un mois ñibbi si Sénégal dellu àndaat ban nuy ban nuy ba ñuy décorer ba ñu meeru Bergamo meeru Brescia di décorer ñu ànd eh, foofa moom daal lan na ca réew ma Italie ak Espagne ak lu sambul ay Hollande foofa la moo fa moo doon nettali ya fa am yëpp. Mm. daanaka fi la ni fanaan. mais man nañ am benn anecdote bu ndaw rek. benn anecdote bu ndaw. li ma ci wax mooy. Eh, mës nañ dem Milan. bi ñu demee Milan <laughs> ñu dugg ci benn marché bi jour mardi xam nga Milan marché yi foofu day am comme genre luuma yi am fii. ah bi ñu demee ci marché bi ñu ngi ànd ak suñu benn copain bu tudd Ahmed. Mm. boo xam ni moom moom moom rek moo dégg ay italien bi ñu àndee dugg ci marché bi. am di dem ci benn naari naar yooyu di jaay ci marché yi Milan hmm. naar bi di jaay am di jënd loo xam ne eh, li mu war a fay naar bi ne ko loolu ngay fay am di ne du fay loolu ndax da koo njëkkoon a wax lii <laughs> am di jàppante fa ak naar ba ba nar a xeex ak moom gars yi téléphoné carré bi ñéeri yi <laughs> te booba. yow yaa def te booba ñun la indi problème ba. man la ma tax a tiit ñun booba suñ visa jeex na. fi la rëy. ay dada sauf conduite rek la doon doxee biir Italie <laughs> am di indi problème ba carabinieri yi ñëw taxaw. booba laa ne am di man mu ne ma ah ma ne ko man ma ànd ak yow tukki ci ànd. <laughs> am di xoola bus am di du dagg ticket. waaw train am di du dagg ticket. am nga am nga ticket train yi. Mhm. boo accès am na booy dugg ci gaar bi nii da ngay dugal. Mhm. affaire bi ubbeeku karaj na kàcc nii nga dugg. am di lay bàyyi ba nga duggal yow yow sat gannaaw lay tafu de da ngay duggal bo nan burux rek am di top sa gannaaw da ngay dugg rek am di bala affaire bi wat da ngay dugg rek am di dugg am di nga wax mo ne dugg mom du dagg tik xaalisam du jar tik ci rew mané ko nak dan ci musa am bis mom mais nag vraiment and ak mom neex na lol ndax dèjà fim ne nek na nit ko xamni comme ni ma koy waxee rek man man duma jay nit mhm. man duma jay nit ndax bu dé dee sama bammel la machallah allah mais sérieusement ku bax la mhm. am di ku baax la ku yaatu la euh, ku ku bëgg doomu aadama la ku fonk doomu aadama la man am di day déplacé wu man li muy ñëw sama kër du ma ko ñëw këram am di li muy ñëw sama kër du ma ko bañ na ba léeg sax bu ñëwee maanaan ko wool biis jox ma ko bu ko defee moo xam ne yaa ngi sama kër mm-hmm. déjà nit ku baax la nit ku woyef la nit ku bëgg ay waajuram la nit ku bëgg soxnaam la loolu man mën naa ko seedeel barke yonent bi nit ku bëgg soxnaam la te ku bëgg doomam la tamit loolu moom loolu man leer na ma naaj ñi man ndax ànd naa ak moom tukki mhm. ñuy tëdd guddi ñuy waxtaan xam nga ñuy partagé wu mais vraiment xam naa ne daal moom daal dama koy ñaanal mhm. anniversaire bi yàlla nañ ko féete ay ati ati ati ati ati ati at dem ba ñun ñëpp ñu màggat yor ay bant di sukkootu di ñëw waaw nu koy fàttaliku loolu daal maa koy souhaité vraiment di di di di di ñaanal LCS tamit mhm. di yàlla jàppale leen tele bi gën a jëm ca kanam comme ni mu koy defee ndax man télé bi. Eh, Sista Maria. waaw man Sista Maria daa bokk ci man. ndax daanaka bi bi may njëkk a ñëw Ndakaaru. Mhm. bi may dugg si Ndakaaru. Mhm. maak moom ñoo bokk fañ doon liggéey <laughs> <laughs> maanaam bi may bi may bi may waddu si. Mhm. maa moom ñoo bokk fañ doon liggéey. day ah, d'accord ndeysaan booba rajo la woon Océan FM. dëgg mu nekk fa ma nekk fa mu doon ku yaatu moom tamit doon koo xam ne man saa su ne damay. moom daal am na boo koy. fàttali suñu maman la suñu maman la maman Maria suñu maman def effet daal moom daal am na yu bari bëgguma ko ndax xam nga dama bari sa pël laa moo tax. <laughs> lay lay question yi ngay posé am di rek laa bëgg a posé. alors day bés bi nga xamante voilà dañu ko jël jagleel ko mbëggeel ak ñi bëggante nooy dundee bés bi déjà yow am nga soxna. am naa soxna waa alors nooy dundee tey bés bi. Euh, euh, bis bi ni ma ko dundee mooy. man man sa man man man. <laughs> man man man chaque jour jour Saint-Valentin la ci man. waaw man sama soxna mi ngi ngumba ngeewlu. Gumba Ngumba euh, Ngewul. dëkk ba dëkkub Cheikh na Cheikh Saad Bouba. d'accord mi ngi foofu. Mhm. daanaka moom papaam ak sama yaay ñoo bokk benn baay. Mhm. sama doomu nijaay la. Nabou Guèye la tudd sama mbokk la kooku xam nga kon déjà. dërëm bi génnul gaal gi dërëm bi génnul gaal gi. waaw même même cours bi la woon. maanaam ñoo yarandoo presque moom ki ñu ko tuddee. Mhm. moom turandoom. Mhm. ki ñu ko tuddee nabu. Mhm. ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. d'accord ah mais père bon yooyu doon na am ay dóor daaxee xam nga. temps <laughs> mënta ñàkk ay ay dóor daaxee sànni ko daal la daw moom tamit mu la la daal. na yooyu sax xëy na yooyu sax xëy na yooyu sax amu eh. ñu fi nekkoon. Uh-huh. dafa newoon côté bële ma nekk côté bële mais ci même dëkk bi xam nga rek après ñu gisé comme mbokk la dem na ba wara jël soxna xol nan xam nan né mbokk la déjà ñu daat koy rafetal. d'accord alors yow sa nekk fi nga nekk artiste. Mhm. bàyyi ko fële. Mhm. ñëw fii nekk Dakar. Mhm. Hein, di di jouer fini alors est-ce que parfois hein, doo leen di am ay contentieux voilà mu tok ndam la. ñëwal weekend nga ne ko non mënu ma ñëw dama spectacle. du jouer parfois si c'est une relation. non mom mom man mom sama soxna. je le dis haut et fort. wax ko sax neexul mais jigéen gënu ko. ndeysaan barke yonent bi. macha allah jigéen gënu ko. Mhm. barke Cheikh Sadbu. ndax moom bañ na ba gis nga. ah gis nga. la gis nga bi muy dem bi ñuy signé xaw ma polygamie ak monogamie dama ko xamul nag. <laughs> loolu bu ñeenti jabar bi mooy lan. ñeenti jabar bi mooy lan polygamie mooy polygamie. Ah. waaw booba man man maa ngi Espagne. ok moom mu ñu waroon a defar certificat de mariage mu am papier bu mu doon dugal. ñu ko il fallait mu am certificat de mariage. mom mhm. mu jugee géewul dem tribunal bu kébé mère pour ñu defar ko mu woma téléphone depuis Espagne. Mhm. ne ma maa ngi ni tribunal dañ ma laaj ne ma pour xawma affaire ñent jabar yeeg affaire benn jabar yoyu mhm. mu ne ma lan lay def mané ko lo def baxna yow dal defal barké yonent bi mu signé ca ñent jabar. signé polygamie mom sama jabar man mo def loolu. ah mais loolu ëpp na ah. <laughs> ah eh, loolu bëriwul moom moo def loolu. ah billaahi. waaw waa ah. mais loolu yombul de. Ah. yombul moom. waaw loolu yombul de. waaw moo tax it du ma mën a bokk ci waxtaan bi ndax euh, man du ma mën a bokk ci Saint-Valentin. lu tax ndax dama amul benn romb naa ñaar ñett ba maa ngi wuti ñeent koñ bu quoi comme man Baye faa laa dama bëgg léegi gox mu nekk ma am fa benn kon kooku Saint-Valentin daf may wàcc. <laughs> yaa ngi ci ñaata père. waaw ah yaa ngi ci ñaata. xam naa daa romb naa ñaar wuti ñett xam naa dinaa ñeent. kon ak yow noo def ak ñoom tey ci bés bi. lu may def lan. nan ngay def ak ñoom ci na ma ko amee nga may laaj. waaw. ndax amee moo ko ci Saint-Valentin dama nekk Baye Fall ñu nekk taalibe loolu jax ñu àndal diggal la ñuy dégg lu mu wax muy loolu. ah dégg loolu ndeysaan loolu ëpp na. waaw Michel dañuy wax moom. xam nga lu xew. waaw ah, ah. moom ma paas ma ko. waa jëlal jëlal mu ne nga ne. Michel at bu jot. waaw saint ak góor gu bees. waa léegi yow Michel damaa bëgg nga tontu sax sa bopp. wuy eh, eh, ma yow nga ne lan sax. ah yu xamante ne on se connaît. làmb ji damm na de. daaw fu ñu nekkoon. ah <laughs> sos. ah. <laughs> fi leen ko fekk fi leen koy bàyyi. waaw kon donc. waa xam nga man egsi naa dèjà man duma la boole ci sama wax. waaw <laughs> naa ñi nga xamante ne danoo am jàmm. waaw ma nuyu leen dëgg la. ñi nga xamante ne safaan la ñuy ut ak fitna <laughs> nuyu ma leen. gor daal day gore yem si benn daal kole si sa sërëq dafa baax waaye at bi jot ngeen ma ki mu indi mu ngi congelé si biti xam nga dara. ki nekk ci biti ngi congelé. kan nag yow ko bëgg a <laughs> ba tey ñi ngi toog fii laa jaak xaaral balaa ngay ñëw mhm. sànq ba tey ñi ngi toog fii ku nekk ngi wax sa jabar ñi di mhm. ñëpp ñi ngi yëkkati micro bi waaw di wax sa jabar balaa ngaa jox ko jëkkër. kooku nga xamante ne ma nga fële taxaw jàkkaarloog man. kan kooku nga xamante ne ma nga. kooku kan ma nga ne la taxaw du kii de pronom relatif du moom. du yow yow may ma du yow. mu ngi ne xool ko xool ko mu ngi ñuy xool. kookal la ah yaa ngi tooñ. kookal la kii. Michel. wuy ma lu mu lay xaaral ma ko fi jaar. voilà dinaa la. koof koof. <laughs> wuy ma bu ma perturbé waaw wuy ma yow ana sa jabar ñëpp wax nañ seen jabar sëf yow ana sa jabar may ma rek ma wax ko fuñ daje maag moom moom may ma wax la fuñ daje maag moom waaw fan ngeen daje xam nga saa moori moori ba mooy lan ñu naan saa moori moori ba xamoo ko non mais ak lu yàgg naa ko voilà dañ doon saa moori kii fawul dañ doon saa moori comme seen kër wax de xale bu jigéen fekk ruq la ah laay nag xam naa li may wax damaa mujj judd xale dañ doon saa moori saamoor comme xale bi seen koñ ruq la seen kër laa daan dugg di làqatu saamoor yi waaw saa yi mu duggee foofu mu géeg na na dëggal ñi dëggal ñi kenn du la gis dëggal ñi foofu lañ xamantee ma dugg nag ba far soog. ah yow dina nga def ma génn. ay loolu la yàlla dogal yow mii. <laughs> per bu xar pour pour terminer pour tëj rek. xam nga déjà waaw initiative bi rafetlu nañ ko comme ni ma ko waxee. kontaan bu baax ci ñëw LCS. di rafetlu liggéey bu baax a baax. Eh, comme ni ma ko waxee sànq di leen ñaanal gudd fan ak wér ci barke yonent bi ci barke mhm. Cheikh na Cheikh Sadbu. te xam naa ne sax incha allah lépp day baax te xam man li ma leen télé bi dama fi bokk gis nga El Hadj Ndiir ma leen taxaw. waaw Ndiir mais. waaw la ci RTS dëgg la El Hadj papaam lañ ma tuddee man. Ah. waaw. Ah. Ah, <laughs> ñu ngi moom ñoo bokk benn maam. dëgg maanaam ki jur papaam. Mhm. ak ki jur sama yaay man ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. macha allah benn famille bi la. moo tax dèjà man daal ci kër gi ci laa bokk. ndax li fiy génn maa ngi ciy ñam. yaa ngi ci ñam bu baax. <laughs> jaa jëf bég naa lool laay kontaan naa baax merci beaucoup père. <laughs> non day lépp laay jaag alors laay jaag la sax nag yow tamit banaa ñuy continuer di tëj euh, <laughs> plateau bi. Uh-huh. daanaka temps bi baa ngi ñuy dab te ñu ngi war a dalal tamit Ndeye Made. Uh-huh. dañoo bëgg nag euh, per bu xar mu daal di lépp en même temps nag jéggal ma nag ma daal di woo ki nga xam ne mooy Thier état mën na la jël si ma sa jabar léegi mu wàcc daal di ànd rek nga yóbbu ma sama ñu Saint-Valentin maa ngi lay xaar Thier. Maria mënoon nga maa bàyyi noonu rek de ne voilà yàgg la dëgg la ñëwul ñëwul benn rek benn bu gàtt rek. set place bi moo déparé ndar di daw mii la ko dammit moom cette place bi waaw. di daw mii la ko damit ne bëxër ñett romb gàndong romb sàkkal romb paal romb lugaloo ne bëxër ñett romb ngumba bàyyi peex gàdd mbaraama ak taw fiix bi mu ne yomb kebemeer daal di déwee dugg tob bi njabi gàddaa fee xàll mbaan kànda la tuube guyóot bellaxoor ndaat njaloor njeng jaw xasim njañu ndàggantoog tugalóor ne bëxër ñett ne yomb dugg ndaan bi muy génn ndaan nag banaan bëxër ñett yem ci ëkk na ca gekk moom cette place bi quatre pneu yu jug ba ca kaw di wëndeelu di daw mii la ko damit pneu jaar gauche a jaar droite pare-brise ba am ca góor gu màggat ne bëxër ñett tël benn côté gu weer ba daal ne bëxër ñett ci biti na jakk motoorub oto ba yanu ne alhamdulilah ba ma jotee sama walis wi mais père ba léegi kenn deewul kenn deewul ci choc bi choc <laughs> bi kenn deewul zéro mort la <laughs> mais lool garaaw naa mais loolu mystique dugg na ci de. waaw <laughs> loolu la xam nga loolu. Euh. loolu océan xam nga daanaka presque loolu lañ daan liggéey foofa. daan fa def ay guddi yoo xam ne maa ngi doy baan. vraiment mu doonoon ay affaire yu yu doy waar daal moom daal àdduna daal a ngi dox. àdduna daal a ngi dox mais merci beaucoup daal kontaan naa lool. <laughs> ok merci beaucoup père. remercier bu baax a baax. yaa ngi tooñ de. alors docteur. waaw lan ngay wax tey ci bës bi. waaw bés bi lu ma ci war a wax dafa bëri. Mhm. ci bësu mbëggeel bi laa wax wax nga ci ndax bésu mbëggeel gi. Mhm. daanu ko mbëggeel gars yi dañ naan mbëggeel bëgg naa diw bëgg naa diw waaye mbëggeel de nit ñi ci xol lay placé waaye dañoo juum nag. Mhm. waaw. <laughs> Ah waaw ndax mbëggeel am na foo xam ne fu leen fa soree rek bu fa amul ñun xool ndegam bëgg dana fa am ndax. nit dafa jafe ñu di ko wax xam nga nit am na niti am na ndax ñu bari ñu ngi naan Saint-Valentin mais Saint-Valentin sax mën naa ni bis la boo xam ni jigéen ñee ko moom góor ñi ñoo waroon di jaamu mm-hmm. ndax jigéen kenn mënu koo fay. koo fi dégg rekk ñu ne doomu diwa rekk ndeyam a tax waaye nag bis bi man mënuma ko seddalee keneen ndax bëggeel dafa doon loo xam ni a cëm <laughs> non bul jooy bul jooy docteur bul jooy bul jooy yaa ngi doon wax lu am solo ba ñu tekk di la déglu mais fabal ma sa rangoñ sama rangoon ñoo usé. usé ndax mbëggeel gi. la ma dese woon ci rangoon jox naa ko gone gi. bëgg ndax ndax ndax damaa topp ci ay tànkam mu topp samay mbagg. ñuy barastiku di ànd di dem ba fa ñu yeggee ba yàlla may ma ci ab bant waaw ma am ci bant boo xam ne nag americain la. isaan gis nañ ko xam nañ ko xam nañu sama fiis musta Omar cëp kaana ma donn ba donn ma ci tànk ndeysaan an la ko yàlla fal cat rek sama doom la macha allah rabbi ndeysaan ndax man daana ko euh, sama Saint Valentine dafa xam ni waa parce que Saint Valentin mooy tin bi ñun ñooy tin gi <laughs> mais Saint Valentin parce que quand il y a un 4x4 qui mhm. passe sur la route mhm. hein, des voitures mais quand il est en haut du pont <laughs> parfois il y a des autres sur le tunnel. Donc, le tunnel ça passe et ça peut partir jusqu'à vers le Dodane. <laughs> En Dodane, ça veut dire tout le monde <laughs> père bu ko arrêté da ngay bañ wax musiba. lay xanaa bëggoo ah? yande koddu seen fii. da ngay bañ wax musiba yande koddu seen laa bëgg fii. def eh. live bu neex live bu neex. parce que sànq dañ doon wax waxu opéra. waaw te opéra dafa doon loo xam ni. waaw musique la. Mm-hmm. réel la te dafa riche. Mm-hmm. adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. ah moo ci gën a riche. je dire quoi. exactement ak jazz bi. Mm-hmm. xam nga à part d'autre part. te naa la xamal benn affaire. musique du monde ko musique du monde bi mhm. mais Afrique la en mhm. Afrique bi fuñ ko tanné dëgg ne gox suñu Sénégal la waaw. parce que moi, tax sénégalais lépp lu dugg ci lu parce que euh, comme je peux dire que ni. dans mhm. euh, raga raga dansal bi waaw bi gars yi di wax nii. dëgg la mais fii la jóge mhm. mais waalo waalo yi ñoo ko créé. wa waalo waalo waaw. ni ñu ko defee ni Moy ki bi tama bobu ñu naan ñaari gorong bi naan ragn ko ndax daga dagan ko ndax du dogon ko ndax daga dagan ko ndax tam bi tëm rëm tëm bi tam rëm pada bu tam dum si may do blok bi me fuko pato don sa tim so amaay bon plen ba blok pe defo do ba tablet be ti don ba black my flot me en den yo sma de da bi balo fa plet be bo defo la sa den ton tamay lim ba ba o win sata longgata win nata o wen en lo blem blok flot clot bed beside no start stop then but well be fluke me na other than for don't then slack don't be clap me no weather I win I'm the them in yo end up let them send I know hey I win me win it I want me win it I want me I love the one blue blue blue you wanna that lifestyle who fire Me, me, aussi aussi reggae tamit reggae tamit ci saraxule yi la jógee. waaw nu mu demee noonu. waaw du caaxaan. ñeeg si ma xool parce que boo déggee saraxule yi ñoom seen tëgg ay xande genre xande la. waaw nga dégg ñu naan ku a ndërëngu mm-hmm. ndànkin. ku ndànk ndërëngu ndànkin. ku ndànk ndërëngu ndànkin nga dégg ñu naan. ku ndànk ndërëngu ndànkin. ku ndànk ndërëngu drinking, dunking, dunking, dunking, drinking, dunking. All la. règle la. waaw. waaw en même temps mais l'opéra. opéra ndax suñuy maam yi ay jamono. Mm-hmm. waaw affaire pulaar yooyu. Mm-hmm. waaw opéra fa la jóge mm-hmm. waaw da ngay dégg xoola bu uh, kii bi masaan am nu mu tudd uh, ay seen mariage yooyu. xam nga jàmbaajo. nga dégg gars yi bu ñu masaan yuuxu da ngay dégg géwél bi ay fajar la koy yuuxu. boobu lay tagg nag gone gi war a tagg waa ji. waaw ndax fa ñu toll maanaam ci wàllu mariage bi. léegi nag. foofu da dégg pëli naan we gaɗo weer mbi yon e eh, oh, oh, oh, elmiɗiyama bi sàcc ko def ko tubabe bi sàcc ko ak riiti nag da doon ak riiti nga dégg riiti bi mooy violon bi waaye nga dégg tubaab bi jël ko ba mu xamee ni loolu la ci la ko jël recruter leen dem yóbbu ko France waaw def ko opéra nga dégg gin cek cek gin cek cek gin cek cek gin cek cek Eh, xam nga loolu c'est l'opéra c'est mais opéra bi dañ ko daan jël def ko genre théâtre waaw bi xëcc ko ci dem ba amoureuse bi dem ba mel na moo moo andi Saint-Valentin bi tey

ndax na la xamal benn affaire tuuti rek nga baal ma ma am tuuti lu ma sànni soo ko wax jante ko du seen nit ku ñuul mënul xam boppam. Mhm. am na ñoo xamante fii ngeen jéggal ma ci wax nag dañuy am seen teint bu ñuul kuk war koo toppatoo mu gën a ñuul kuk ñu di ko fooyee di ko jéem a reesal. kooku Michel la. ngeen jéggal ma ci wax nag du sama yoon sax mais fale ñu di ko wax nañu bay di soppi seeni der yi ndax nit ku ñuul nit ku ñuul mhm. moo gën a riis ci àdduna. te moo gën a riche ci monde bi monde bi yëpp laa wax de. mais naa la xamal benn affaire. Mm-hmm. couleur unique noir lañ ci soxla ah. nit lu mu mënti am bu amee noir toola tubaab bi buy jënd oto sax day xool noir mu gën ko jënd mu jënd ko jël ko mm-hmm. mais xoola tamit ah euh, li nga xamante ni ku ku ko raayul doo doon aji mbaa nga doon yi lan la dafa ñuul kuk waaw mooy kabatalaaw xoola sutura sutura muy guddi gi te dafa ñuul kuk voilà. doko la sax docteur xam nga sama son bu bes fi day waji génn. waaw te yëpp man ko tek ci affaireu xessal waaw xess wex dubul wex xess xaliss bi ngay yak jarna leneen lu dul xeesal fa lay tëjee yoon doyna sa na. legui nak legui euh ngeen yu ki ma legui lolu buñ ci genné docteur ñëwal ñëwal temps bi temps bi temps bi dab ñu ñëwal fofu noonu. amiri ngoore fa yooyu mbi naam. cu dégg it waaye. la voix sérère mbira fay suur mbiram yey kor fatigano njima sakatan woy xa biram ndin o sereer leyo kiyey o seerib woy na waxto tigeedu xa qiñis mi de kam bugina xeene kene buga axam mi ando womo koy o mbigeyo samba birama njayo fako nana ndin eseri boyom na waxto tige tu xaqiye ñes seri boye na waxto tige du xaqiye ñes kundantan gugudungun doqotungun gugudungun doqotungun reer fadu mano xayo sikena maya san fet kona maka njaay e birama tajun e amdimi ñowoy o bisem man ko yaay kor biram jak na foon e kater pisi nini e andak mariyam e pillay yangol maam jam pillay jappal fuuf ey kuma lime juum ay ku tewa xul xama e peer bo xara ngook andak kuma wara andal yala may ko lele waay xolal numu tute waay el mon la cof ay cof merci beaucoup ko jere bu baax a e baax koy ko <laughs> jarama koy nduk

bàyyi day mbaat alors baax na Ndeye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal. maa ngi lay fay père. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. Mhm. ak téléspectatrices si di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi toog ak sa Valentin. Euh, di dund li nga xamante ne moo di mbëggeel. Euh, di félicité aussi tamit ki nga xamante ne moo di Amdy Mignon ci bésam bi nga xamante ne daa fekk mbëggeel rek moom mi dafa sob na si cuub juddu kenn raw ko. ak doj xol. waaw xol bee doj am euh, di nuyu bu baax ñi nga xamante ne tey ñu ngi toog di seetaan yàgg na loolu ndeysaan gaa may woo naan man ndey ana nga waaye ma ne leen dinaa ñëw léegi rek xam temps bi te du fekk samay baay. dëgg la samay tons yi nga xamante ne bu buñ nee comédie ak bégal jaam ñi. Mm-hmm. Euh, ñoom la ñuy jiital kon dama leen di bàyyi ñu jël seen temps ba pare mm-hmm. man si ñoom laa gisee si ñoom laa jànge pour bégal gars yi rek. Mhm. moo tax bu ma leen fekkee dama leen di xaalal ñoom ñëpp ñu bégee ba pare. Mhm. man nag euh, non bu ma neexee sax mën naa. mën nga def la neex. alors xale dina bëggante. waaw non xale day bëggante. ah. Mhm. xale man man. Ah. man dama nekk xale. bu am 3 ans. d'accord waaye man damay bëggante sama xale. waa bi mu ñëwee di la doxaan. waaw ko doon defee. <laughs> ah Ndeye Mada laal nañ la nag. mu ngi génnal foofu ah, génnal foofu génnal boobu non jour ndey Mada nak ñu ngi Saint-Valentin. ku ci nekk di nga wax di la doxaan. fekk la ngay xalé bu am 3 ans num ko doon defee ak loko ko doon tontu. waaw. dafa ñëw fekk ma tok mhm. xam nga xalé la waaw nek mom mu bëgg a doxaan xamul nu may doxane mhm. dugg sama kër. Mhm. Eh, fekk sama yaay ak sama papa tok léegi bu mu toogee mu ne euh, dafa bëgg comme xale bi xale bi moom boo ko ñëwee ne da ko yëkkati fob ko mu ñëw rek yëkkati ma fob moom laay bu dee danga may dégg <laughs> déggoo ma maa ngi lay dégg bu baax mu yëkkati ma fob ma teg ma ci kawam mm-hmm. ba ma jooyee taxal ko déet mu fomp rek tegaat ma fa ndekete foofu fooy point cœur bi déggoo ma <laughs> point cœur waaw point cœur bi ma gàll ko xam nga gàll <laughs> xalé nga xalé nga. mu tek ma ci point cœur bi rek ma galu ko taxal ko moy mu tee rek fompat ndegata man boba ca xol ba lay deewee. bob yaangi jang wax. bob maa jang wax. amna ay cadeau yoko sani ci la taxé ba légui amna ay cadeau yoko sani sànni. ne ko yow yow yow def ni yaa yow <laughs> man xalé bu naw bi yéen da ngay bëggante man bu la yaa jappé ak sama papa dina la ray <laughs> Eh, tey aw ma dara lu may wax ndax damaa kontaan gis si ah. père bu xar. merci beaucoup père. père bu xar dama ko doon imité ci école yi nii bu ma naan dem mère bu xar lañ ma daan woowee xam naa am na gars yu may dégg mais mère bu xar lañ ma naan woowee dama doon imité père bu xar ñamal ju ci boo xam ma ne ko mais xoolal attention xoolal xoolal instant bi xoolal damay jël su may xoolal dégg nga ndaar xoolal see xoolal dama koy jël xoolal bu fekkee tey anniversaire bi ni ma koy jëlee xoolal père mais xoolal attention père ñëwal père ñëwal day toogal non day toogal rek toogal toogal toogal. waaw non non wuy ma te wax na dëgg wax na dëgg laay. voilà léegi taxawal lii léegi Père Boukhar da ngay jug ñu jël sañse bi sax. parce que dañ ne Mère Boukhar ak Père Boukhar. na ñëw. Mhm. teel ko poche tam. Père ñëwul nii Père ñëwul nii. na ñu mën a jël. voilà ñu dem mais xoolal attention boobu ba léegi maa ngi toog di la déglu ngay wax sa volonté mais la moo tax nga bàyyi ma fi dem di volonté ak keneen ah père. père ka père ka père ka. day ma de man yow laa faral de. non mais xoolal xoolal xoolal may ma tuuti rek mais père ka xoolal boobu ba léegi maa la woon nga naan ay ñaar ñett ñeent nekk na yow man la woon yow léegi loo bëgg a foofu yow père ay ci ñëw la. Datsega kamga bengal bram nya ben da wira deuxième ben bi nga jaar ci troisième bi may tëb ci biir bi dama tëb bàyyi waat biir droite bi ma wiree gauche tëb ci rond-point bi ma wiree ba ci wetu casque bi dama bàyyi casque bi jëlaat koy bu rouge bi boo jëlee beneen porom rouge bi bàyyi waat porom jaar ci wetu Dakar bi ma romb Dakar da ngay ne ci gannaaw guy gi mooy ci gaw guy gi nga taxawoon après dama wiree nag rombaat gauche bi Allez, merci oh, beaucoup. Beau. Là, c'est très beau. Là, c'est beau. Mais là, ah, c'est beau. Bon.

waaw euh, exotis tendance ah, non daal lay bokk ci. d'accord. père daal lay wuy problème mu léegi laa si métalon yi xam nga damaa xaw a <laughs>

<laughs> toogal alors on termine en beauté Dolce ñu pare ak waa am di mi ñëw yëpp am di problème merci c'est gentil bés du borom lay nirool comme ni mm. kay olof Njaay di waxee dama daan taatantaa ci dig ndox ba am di jël na rakol ba féppay toy alors am di tay nekkoon bëss bo xamante ne nii bu spécial la ci yow ñu bëri ñëw fekk le nañ la ñu bëri ñëw ñëw nañ ndokkeel la ci bëss bi ni mel di sa bëssu anniversaire tay bo amone loy wax ak ñi ngay remercier ñan lay doon ak lan nga leen di wax bon d'abord euh, damay njëkk remercier sama waajur. Mhm. sama papa ak sama yaay. Euh, donc di naan euh, bis bi tey sama xol dafa sedd di remercier waa Castor yëpp def seen délégation bu mag bi di wax ni duma lim kenn nekk waaye. sama xol mu ngi ci ñëpp ñu bëgg ñëw ak suba ba léegi ak ñi nga xam ne maa ngi leen di expliquer bi ñu bëgg ñëw ak ñu réer ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax baax a baax a baax euh, bu ko weesoo nag ma si toppee mu remercier sama jabar ak xaritam muy Mata Kayre ah di remercier sama doomu ndey Papa Mbaye di remercier ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci bis bi baax baax baax baax euh, di remercier Mujuri Ñas Mouzir, Mouzir. di koy remercier beaucoup. baax di remercier Mor Mor bi nga xamante ni tamit mu ngi ci jàpp ci bis bi di remercier Wa Kapanakal di remercier Wa Kapanakal di remercier Wa Mobilis bu baax baax Louis Chevrolet. waa di remercier tamit waa Louis Chevrolet bu non Louis Chevrolet Louis Chevrolet Chevrolet ma wanewaat ko waaw Louis Chevrolet di remercier Omoro mhm. bu Cheikh Béthio di remercier maman Ndeye wax leen ñoom ñëpp seen enveloppe ñëw na mënumaa lim ñëpp ñëpp ñëpp ku ma fàttara xamal ni noonu la demee waaye sama xel maa ci ñëpp. remercier naa ñëpp gërëm naa ñëpp di remercier Maria si sa Maria. waaw moom moo nekkoon ci réalisateur bi. <laughs> Ah, réalisateur bi di wax defal nii defal nee neexu maa réglé di remercier Kébé caméraman monteur di remercier sama collègue. Mhm. Lay Diak moo collègue. Dolce di remercier Michel. Michou Michou. Michou <laughs> ah di koy remercier bu baax. ah léegi nag ñu ma war a remercier mooy ñii. waaw ndeysaan ndax euh, su ma nekkee ci aar ñii la ñii ñoo ma doon tette di may jàngal fi ngay teg sa tànk defal nii defal nii lii ngay def des fois ma ñëw ne du ma def lii. ñi ñi ñi summi seen yére di xeex ak man des fois xam na ñëpp xam nañ damaa bëgg xaalis des fa lañ may pini <laughs> heure cachet bu jotee ñu war a jox gaa yi bu ñuy am xaalis bu bari ñu ñëw répétition dañ la koy dakk <laughs> bu ko defee may jooy <laughs> ñu ne ma 9 heures su ma jooyee boo xoolee ne group bi ne su ma jooyee ba ba sama bët yi métti. Mm. tuuti may woo keneen na ko noonu yërëm leen ko. jox la ko xaalisam <laughs> ñu jox ko di remercier euh, per bu xar mii mm-hmm. per bu xar sama xarit la boo xamante ni tukk rek boolewuñu nit la boo xamante ni li mu wax ci moom dafa sincère nit ku baax la mm-hmm. di koy remercier bu baax a baax parce que mënu ma wax parce que nit ki am na loo xam ne boo dundeek moom man loolu laa man a remercier mm-hmm. man sincère laa gëm li ngay dund na nga ko gëm li ngay dund na nga ko na fier ci yow ma loolaa gëm ak ñoom di remercier tamit Sanex ak Aziz ñi fi jaar ñëpp di remercier Ouzin Keita ak Ndégué ak artistes yi nga xamante ni jaar nañ fii yëpp ñoom Moussa Diouf Matar Faye ñun ñëpp maa ngi lay remercier di remercier sama gaay yi nga xamante ne mooy Mbaye sama téeru ñaawul yee ak Assane de remercier bu de di remercier aji koña di remercier ki nga xamante ne Rama ah wa Rama wax nga deug ah Rama non Rama du remercier. Mm-hmm. non lutax parce que c'est mon collègue. ndeysaan parce que kokou dotul ay remercier. voilà c'est mon ami un né c'est mon complice. da ngeen bokk lepp c'est mon sama rak la. ndeysaan lu mu def j'accepte. Mm.

ñëpp bu la neexee. d'accord <laughs> il est très là. il est très <laughs> alors euh, pour les remerciements am di remercier Lindor ah sans pour autant oublier ñi nga xam ne ñooy liggéey Lindors ku ci mel ni Nafi euh, ku ci mel ni. sama xarit <laughs> Pape Latir. sama xarit Fadilou. sama xarit. waaw Mamour Thiam idéal mode. moo moo ma solal lii moo génn fu baax fii. jël ko gros plan. waaw non non jaruñu lay gros plan yow jaruñu lay gros plan bàyyi ni rek ñu lay jël ci kaw ba ci suuf mais gros plan jaru ko. Ah? ma top la bam mu ma daal di egli remerciement bi. sans pour autant oublier xel comme bâche. waaw ño def li bâchal la nag diggu kër gi yëpp. diggu kër gi yëpp parce que li ko bëggoon nga joxé nee 1 million waaye comme man la. Mhm. defal lañ mako ko gratuit. gratuitement.

ku mel ni Mara. ndeysaan Jibi. Mhm. Euh, di remercier. monsieur Biagui. monsieur Biagui. Mhm. Adrien. Mhm. Tidiane. di remercier. Moussa Kaler Kader. <laughs> ak ak Kebe ak Kader. ñoom ñëpp maa ngi leen di allo. waaw ak euh, ki nga xamante ni. Moussa caméraman ah, ak waa régie. les monteurs. ñoom ñëpp. tous les personnels RTS ba c'est gardien bi. Hmm? RTS RTS RTS baax les lois que débauché ah. c'est que ça ah. dem xew de am dem dem dem euh, non mais attends dem dafa xew. trahir ah. non non fi ngeen toog di gërëm ñëpp. <laughs> waaw di sant ñëpp di sant waa Panthère. Mm-hmm. ñoom it jàpp nañ ci bis bi. bu baax bis bi daal ñu fa nekk ñëpp jàpp nañ leen léegi nag mu bëgg ñu def photo de famille. ok waaw léegi balaa ñuy photo de famille tamit. alors mm-hmm. Michel Michel tamit mu tàggatoo ñu ñu seetaan. waaw di kontaan bu baax euh, ñëw fii bokk ak yenn plateau muy laaj ak comme tout comme euh, yow Dolce Montego mm-hmm. di euh, waxaat Amdy Mignon happy birthday aussi yàlla na la yàlla defal jàmm at yi di ñëw ci kanam gën yi nga xamante ne moom nga weesu yaa xam lu nekk sa biir xool yàlla na la ko yàlla may defaral ko tamit mboole mi jullit mm-hmm. ñu yàgg a toog di sekk yi plateau ak suñu ay frère suñu ay papa comme mm-hmm. nuñ ko defee tey muy bésu Saint Valentin di leen wax rek que maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp yéen ñi nga xamante ne yéen ay téléspectateur u euh, LCS LCS yi yow rek mu dul bàyyi ma concentré waaw da ngay waaj a ah. da ngay trahi mafia dégg naa jàmbaar ñetti <laughs> dew ma dew ma maa ngi fi kenn débouché wu ma dew ma dew ma maa ngi fi donc nag kontaan naa bu baax a baax a baax bokk ak yéen plateau yi merci beaucoup et à très bientôt adooma sax laay wax incha allah mhm. suñu plateau li xew

Oumy Oumy Gay Guèye Ndioro moo daal di génn fii di remercier ñëpp euh, di leen wax nag euh, ni rek lay demee euh, LCS li ngeen xam ne moom ngeen bëgg moom la leen di indil Happy Valentine's Day la wax j'en profite pour souhaiter une une joyeuse fête de Saint-Valentin à mon papa chéri à ma maman et sans pour autant oublier aussi à mon cœur ndax ñëpp am Valentin man tamit am naa Valentin pour ne rek leen nga ne sama Valentin nu mu tudd non surprise là. Tintin la tudd Tintin. tuddul benn Tintin. bàyyil tur. ay caddool tout. aha alors di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp euh, lay jàkk aussi c'est est toujours un plaisir. <laughs> am di baal caaxaan continuez continuez s'il te plaît. non dina ñëw am di enveloppe dina ñëw mu ngi lay seetaan mu ngi ñëw. d'accord accord demal alors lay di c'est uh-huh. toujours. <laughs> ki du ma alors, c'est toujours un plaisir, Lajak, mhm. de partager le plateau avec toi. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour l'émission L'Irew à partir de 22h. D'accord, Michel. allez merci donc à tout le monde merci à tous les amis téléspectateurs de la LCS. J'ai oublié quelque chose. Michel, on va faire une photo de euh, euh, famille. Mangi, Mangi, Mangi, euh, Sanni, Kadou. Indalel madame, ah, indil madame Bich. De nuit, sama, sama chéri. Uh-huh. Oui, sama khol. Waouh, de Aïssatou Diouf depuis de Kaolach. D'accord. Merci. Ciao. Ok. Merci. Alors. Bich day ñëw ñu terminer en beauté alors madame ñëw ñëw leen ñëpp ñu daal terminer en beauté on se lève on se lève alors Biche kaay taxaw nii kii mooy Mam Thierno. maam Thierno ñëwal fii maam Thierno ñëwal fii kaay wax kay kay kay alors bàyyi Mam euh, Tierno Telmani voilà ñu ñëpp taxaw ñu terminer donc en beauté euh, voilà ñëwal. Wa Kastoru lan. Poupoune <laughs> ma ñëw sa terminer donc en beauté Omar Balago Poupoune Poupoune Poupoune yow ah. voilà alors. Poupou ne <laughs> alors di remercier bouba baax nous baax ñëpp ñi nga donc nañ ci événement bi ni mel partenariats partenaires yëpp ñu ngi remercier euh, vraiment alors mes remerciements du fond du cœur Omar Balago mi nga xamante ne nii tarkal mooy def yu baax yi ni alors je remercier le centre commercial Touba Sandaga di remercier mon frère Alun Seck bu baax Maria c'est Mbaye sa bigee baa ngi lay le souhaiter donc euh, voilà bonne fête mami merci et bonne fête à toi alors Amdi Mignon ñu ngi lay remercier content de ci yow vraiment vraiment bus bu yombul et donc di remercier ñëpp ñi nga xamantene ni japp nañ ci événement bi alors artistes yi fi tew yëpp andon ak mom ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax et donc di remercier tout le personnel de la LCS parce que événement bu amé ñëpp ci japp ñëpp ci japp A ba Z ñëpp ci japp Ngone ñëpp remercier nañu leen bu baaxa baax alors on va terminer donc le plateau. avec Tierno, euh, Mam Tierno, Lo dafa am lo ci bëgg wax am di waxal. Mam Tierno mm, joyeux anniversaire papa. joyeux anniversaire papa. oh ça c'est trop fort. allez merci à vous